bon réveil à tous les téléspectateurs de la 2STV amaat mbégte bu baax a baax euh, janok yéen tey ci euh, vendredi bi comme ni ngeen ko gisee nous sommes le 7 euh, janvier 2022 comme ni koy defee saa su ne du lundi vendredi bu waxtu wi jotee ñuy ànd ak yéen ci seen matinal matin bonheur di leen indi li nga xam ni moom moo gën a fës ci wàllum actualité dinañ ko indi ci wàllum xibaar waaye itam waxtaanee ko tey ñu fas yéene fee dalal ki nga xamante ni moom moo di docteur Ahmed Khalifa Niass donc ci kanam tuuti moom ay ponk yu am solo yoo xamante ni euh, ñeel na wàllum actualité laata loolu ñu jox leen li nga xamante ni euh, moom moo gën a fës ci wàllum xibaar yi dooree ko ak euh, docteur Abdourahmane Diouf mi nga xam ne moom moo jiite parti Awalé démb la daal di tenir ab conférence de presse di xamle rek ne lu jëm ci contrat SETER ak SENTER bi nga xamante ni en tout cas moom moo lié Sénégal ak yooyu les sociétés jamono ji mën nañ jàpp ni du contrat yoo xamante ni yu tegu ci yoon scandale la te scandale boobu ñi moo impliqué mën nañ ci tudd euh, ministère des finance waaye itam euh, ministère de l'économie euh, ARMP ak DCM bi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo sekk lu jëm ci boobu boobule scandale nga xam ni moom jàpp na ni en tout cas ci wàllum contrat la jëm ci train express régional ñu daal di taxaw ci li nga xamante ni moo gën a fës ci wàllum xibaaru Covid 19 comme ni ñu leen koy joxee fajar bu jot démb Sénégal daal di lu toll ci juróomi téeméer yi ak fukk ak juróom-ñeent ci ay euh, cas donc bu gannaaw ba ñu defee lu toll si euh, junni test ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak euh, ñaar gannaaw loolu ñu gis ni itam ci téeméeri cas yooyu ak lu topp ñaar fukk yi ak juróom-ñeent ay cas contact lañu lii di tee ñaar ñeenti téeméer yi ak juróom-ñeent fukk yi ay cas loo xamante ni ñi ko am xamuñu kan lañ ko fan lañ ko jëlee donc loolu mooy li nga xamante ni enregistré nañ ko Euh, ci ay euh, cas ñuy wax yi itam ni Sénégal démb enregistré na ci lu toll ci cinq cas graves yoo xam ne jamono ji ñi ngi ci service de réanimation yi waaye amul benn décès boo xamante ni euh, mentionné nañ ko ci communiqué bi il faut aussi noter am nañ téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ci ay patients yoo xamante ni démb déclarer nañ leen négatif donc ñu wér ci mbas mi jamono ji ñi nga xamante ni ñi ngi leen di faj ci wàllum Covid 19 fii ci biir Sénégal. Sénégal lim bi mu ngi toll ci ñaari junni ak euh, fukk ak ñeent ci ay doomu aadama loolu moo nekkoon li nga xam ni moo gënoon fës ci communiqué bi tukkee ci ministère de la santé et de l'action sociale rapidement ñu dem xool li nga xam ni moo gën a fës ci yéenekaay yi quotidien yi xëy ak ñun euh, Sud Quotidien daal di ñëw ñun si face à face gouvernement ak presse démb euh, la ñu daal di rek xamle lu ni mel tey jii lañ ko fas yéene dooraat mu mel ni bu ñu sukkandikoo euh, ci Sud Quotidien kii di njiitum réew mi di président Macky Sall moo jëm euh, ci wàllum ay démarche politique am Walf Quotidien euh, ñëw ci mbirum inauguration ak njiitum réew mi président Macky Sall jamono ji mi ngi ci temps de l'action politique comme ñu koy waxee euh, mi ngi nag di inaugurer saa su ne surtout nag si jamono ji nga xamante ni ñi ngi ci pré campagne le quotidien daal di dugg ak ñun ci anam bi nga xam ni moom la ñu yoree wàllum ndox fii ci biir Sénégal jox si kàddu kii di Mignane juuf bi nga xam ni moom depuis euh, deux ans en tout cas ci ginnaaw mi ngi doon rek euh, ŋàññi li nga xamante ni moom moo di contrat boobu lié état bu Sénégal ak Suez di wax ni société bi dafa ñëw euh, pour rek gën sax en tout cas xoolaat moom nu muy gañee xaalis ci Sénégal waaye ñëwul benn yoon ngir dakkal li nga xam ni moo di coono ndox bi fii ci biir Sénégal réew mi quotidien dafa daal di tax taxaw ci mbirum campagne électorale xam ni samedi bi euh, ci minuit lañ ko fas yéenee euh, door ñu ne nag euh, tiitange mi ngi mel ni daal moom mooy ñeel en tout cas yu bëri ci askan wi ndax anam bi nga xamante ni moom la ñuy ragal yooyu les campagnes déroulé wu bu ñu jógee ci réew mi quotidien dañuy daal di taxaw ci tribune moom dafa ñëw si ñaaru ay bés yi nga xam ni si la ñu nar rek tëral yooyu les campagnes électorales fukki fan ak ñeent yoo xamante bu ñu mayuwul administration circulation bi dafa fas yéene euh, sooxee waaye itam embouteillage yu doy waar moo fas yéene am euh, ci yenn gox yeeg goxaat ñi euh, critique quotidien ñëw ci mbirum projet de loi boobu nga xamante ni moom mooy criminaliser mbirum homosexualité fii ci biir Sénégal di wax ne nag duñ kuñ ci joxoñ baaraamu tuuma ci mbirum rejeté buñ ko rejeté moo di kii di président bu assemblée nationale di Moustapha Niass moom la ñu di rek joxoñ baaraam ni lépp moom moo ko daal sooxee l'observateur daal di ñëw ci élection locale yu 2022 euh, yi ak euh, Benno Bokk Yaakaar budget bi nga xamante ni moom la ñu génnee ngir daal di koy demee campagne mi ngi toll si ñetti milliards ci suñuy koppar loolu mooy li nga xam ni euh, l'observateur xamle na ko 6 millions de francs CFA pour des 552 communes yoo xamante ni moom la ñu daal di rek fas yéene dem defee campagne source a di wax sax ci mbirum campagne boobu ak ouverture bi nga xam ni fii ci Dakar ak Parcelles Assainies ni eh, kii di Mariem Faye Sall di première dame moom fas yéene nañ ko xaar ci yooyu les campagne bu Diouf saar ndara amal ci stade municipal bu Parcelles Assainies L'As Quotidien taxaw ci eh, annonce bi nga xamante ni def nañ ko eh, kii di njiitum réew mi moom moo daal di rek annoncé ay sanctions contre ñi nga xamante ni dañu tëgal ay liste parallèle ngir rek défier li nga xam ni moom moo di yenn ci choix yu ñu def ay sanctions nag dina dal seen kaw bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di L'As Quotidien Vox Populi taxaw ci mbirum tàggat yaram ak Lions yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi fële ca Cameroun di wax rek ni euh, moral bi en tout cas baax na lool ci côté euh, gaynde yi terewul itam kii di Aliou Cissé mi ngi xamle ni euh, dinañ rek affaire bi du yomb dara ci li nga xamante ni moom moo di gaynde yi donc nañu gën a rek taxaw temm xam ni mbir yi du yomb lool ci compétition boobu di kann di Coupe d'Afrique des Nations fële ca Cameroun les échos dafa ñëw ci li nga xamante ni moo jëm ci monnaie local bi njiitul euh, Pastef di Ousmane Sonko daal di euh, proposé jamono ji nag kii taxaw ngir jàppale ko ci euh, lu ni moo di waa Yewwi Askan Wi ndax gis nañ ni critiques yi dafa bëri lool lool moo tax ñoom ñu taxaw temm daal di koy taxaw ngir jàppale wax itam ci benn rek document boo xamante ni signé nañ ko il y a jours ki ko signé di Antoine Félix Diome di ab document boo xam ne en tout cas moo jëm ci avancement ci police loolu nag bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi mi ngi wax ni indi na coow ci biir boobule kër diggante li nga xam ni moom mooy liggéeykat ya fa féete loolu moo nekkoon li gënul fës ci yéenekaay yi ñu doon leen ko dégtal noonu lay daal di def introduire suñu invité tey di Ahmed Khalifa Niass laataa ñuy ñëw. Euh, ci lu jëm ci euh, lii di sujet tay bi mu rek euh, xool lan moo ko gën a attiré ci revue des bi ñu ngi lay nuyu sëñ bi di la dalal ci plateau bi. jërëjëf ñu maa